delloo nuyoo bi ziyaara bi bu baax sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ngi delloo nuyoo bi ak ziyaara bi bu baax di am mbégte bu baax a baax a baax di am mbégte bu baax a baax a baax ci taxawaayu sëriñ Ousmane ci taxawaayu sëriñ Ousmane Moustapha mi. ak sëñ Moustapha mi. ñoom ñi nga xam ne. ñoom ñi nga xam ne. ñoo indi bokki taalibe yu baax yi. ñoo indi bokki taalibe yu baax yi. am nañ ci mbégte mu rëy am na ci mbégte mu rëy rëy dolli ko nañ ci yaakaar ju rëy. nee na dolli ko na ci yaakaar ju rëy. Serigne Touba tawfeexi boromam rek la. nee na Serigne Touba tawfeexi boromam rek la. ñu war a gën a sant yàlla ci suñu borom mi nu booleek moom. bokk ci dugg ci tawféex jooju. nu war a gën a sant yàlla ci sunu borom mi nu booleeg moom nu dugg ci tawféex jooju. tawféex jooju nag moo indi lii. nee na tawféex jooju nag moo indi lii. mbooloom taalibe bi moo xam ne seen xel dañ ko seen seen seen lépp dañ ko jëme ci Sëriñ Tuubaa. mbooloom taalibe bi moo xam ne seen xel seen lépp dañ ko jënd ci sëriñ Touba. di boroomi xam-xam. tey boroomi xam-xam. loolu tawfeexi sëriñ bi rek moo ko mën a andi. nee na loolu sëriñ bi rek moo ko mën a andi. moo moo tax mu feeñale ko nii. moo tax mu feeñale ko nii. ñoo xam ne njabootu sëriñ Touba lañu. ñoo xam ne njabootu sëriñ Touba lañu. nekk eh, am yitte ju toll ne ji am. am yitte ju toll ne ji ngeen am. bëgg rek loo xam ne eh, eh, dana dana gën ko ci Touba. bëgg rek loo xam ne dana dolli ko ci te dëgg la xéewal yi mu fii seen Touba na waaye ndox nag moo ci jiitu. dëgg la xéewal yi ñu fi séenu bari na waaye ndox da cee jiitu. ndax Serigne Touba fàgg fàggu na lépp. ndax Serigne Touba fàggu na lépp. kon yéen li ngeen war a njëkk a def mooy sant Serigne Touba. kon yéen li ngeen war a njëkk a def mooy sant Serigne Touba. tawfeex jooju nga xam ne ci ngeen bokk. ci tawfeex jooju nga xam ne ci ngeen bokk. kon bu ngeen jógee ànd ak yitte jure ju toll ne ji ngeen amee. kon bu ngeen jógee ànd ak yitte jure ju toll ne ji ngeen amee. loolu alhamdulilah rabil alamin day gën a dalal sunu xel rek. loolu alhamdulilah rabil day gën a dalal sunu xel rek. ndax ni ma ko waxee léegi sëriñ bi fàggu na lépp. ndax nee na ni mu ko waxee léegi rek sëriñ bi fàggu lépp. lu mat a fàggu rek lu mat a rek sëriñ bi fàggu na ko. te jubóo na ci ak boromam. te kon yéen da ngeen am tawfeex sëriñ Touba rek. kon yéen da ngeen am tawfeex sëriñ Touba rek. <coughs> ñoo ngi leen di sant ci yitte jure jooju. nee mi ngi leen di sant ci yitte ju rëy jooju. taxawaay bu rafet boobu. taxawaay bu rafet boobu. jóge ci yéene ju rafet a rafet a. jóge ci yéene rafet a rafet rafet. positif bu bu bu sell sell bu wér a wér a wér. ak positif bu sell sell bu wér a wér a wér. xol moom bu xasee aju ci Sëriñ Tuubaa rek. ndax xol moom bu xasee aju ci ba sell na wér na. positif ba sell na wér kon nag jërë jëf. nee na kon jërë ngeen jëf. ñoo ngi leen di sant Serigne Touba bu baax a baax. nee na mi ngi leen di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax. kon nag dégg nañ leeral yi. nee na dégg nañ leeral yi. ci wàllu gëstu gi. ci wàllu gëstu gi. xam ndox jiitu ci. te ndox jiitu ci. loolu loolu day lu lu lu lu aajowoo aajowoo la. nee loolu day lu nu aajowoo aajowoo aajowoo. ndax ndox dafa dafa nekk def moom mooy lépp. ndax ndox moom mooy lépp. kon nag sunu aajo sunu aajo yi bari na te rafet na njort ci ne aajo yooyu yëpp dana faju kon nag sunu aajo yi bari na yaatu na waaye rafet na njort ci ne yëpp day faju waaye ndox nag moo ci jiitu. waaye ndox nag dajaa jiitu. mooy mooy aajo ji te ji taxaw tem mu fi mu nekk nii. ndox nag mooy aajo ji taxaw tem mu fi nekk nii. kon ñëpp ni ngeen ko defee rek war nu jëmee suñu xalaat. ci noonu ndox di amee Touba ba doy sëkk. nee na kon ñun ñëpp di sell. di ndox di ndox mu sell. ni ngeen ko defee ñun ñëpp war na noo jëmee suñuy xalaat ci. ndox di ami Touba doy te sell. suñu yitte suñu yitte ñu jëmee ko ci ndox di ami Touba di sell. ndox na na ndox na Touba mën a ndox mu ndox mu doy mu sell. na Touba mën a amee mu doy mu sell. loolu ñun suñ suñu yëpp suñu yitte jëpp ñun ñii. nee na ñun ñii. rawatina yéen rawatina yéen ñii. rawatina yéen ñii. ko war a jëmee rek ci ndox. dañ ko war a jëmee rek ci ndox. na mu gën a gaawee. na mu gën a gaawee. waaw noonu rek la demee. nee noonu rek la demee. mbënd maa ngi fi. mbënd maa ngi fi wax dëgg yàlla lu lu waar la ndax mën lu rafet ci njort. moom wax dëgg yàlla lu doy waar la. ak lu métti métti métti métti métti. mënul lu rafet ci njort rek lu métti métti métti. ndax bu xewee fii fii sëriñ bi. ndax bu xewee fii fii sëriñ bi. loolu dama dafa mel ne xëy na dafa bëgg indi ndox mu. ndox mu ndox mu bare bare bare bare mu sell. loolu xëy na dafa bëgg indi ndox mu bare bare bare mu sell. moo tax natt boobu jiitu. moo tax natt boobu jiitu. noonu rek la ko mën a gise nee noonu rek ko mën a gisee. nee noonu rek la ko mën a gisee. kon jërë ngeen jëf. kon daal yitte jaa ngi noonu. ñëpp daal dañ ci jëmee suñuy xalaat. ñun ñëpp nañ jëmee suñuy xalaat. ñun daal di gën a mën a amee. ñun daal di gën a mën a amee. Eh, liggéey bi liggéey Sëñ Tuubaa dafa rëy lool. liggéeyam Serigne Touba dafa rëy lool. ndax yàlla rek la yàlla rek yàlla rek la doon liggéeyal. ndax yàlla rek la doon liggéeyal. moom liggéey te yitte moom la nu fi bàyyil. te yitte jooju la nu fi moom la nu fi moom la nu bàyyil. liggéeyal yàlla dong moo nu fi moo moo nu a bàyyi. liggéeyal yàlla dong moo nu fi mën a bàyyi. kon nag. kon nag. yitte jàngoo ko. yitte jàngoo ko man nag lay sama yitte dëgg-dëgg. nee moom nag li yitteem dëgg-dëgg. sama bànneex. bànneexam mu gënal ma mu tam gënal ko moo di ñu indi ndoxum Lac de Guiers ba ci Touba rek moo di ñu indi ndoxum Lac de la nekk jëwriñam dafa nekk di Ousmane Anne ñaari dem ba caag mu ne faaw mu dellu ndax liggéey ba hmm. boobu gisee géej yëpp jor doganteeg doganteeg doganteeg doganteeg mu ne doganteeg doganteeg jàngu bu rëy bii doganteeg jàngu bu rëy bii nga xam ne fi la ko sëriñ bi bàyyi nga xam ne fi ko sëriñ bi bàyyi mu xam ne moom bu ñu ko ko defuloon itam defal nañ ko ko ba noppi. moo xam ne bu buñ ko ko deful loolu itam defal nañ ko. yàlla nee na suñu borom na ko na suñu borom defal na ko ko ci barke bi yonent bi. ci barke bi yonent bi. loolu moom loolu yitte jooju nag. nee na yitte jooju nag dafa jàmp lool. dafa jàmp lool moo tax bi ma jógee rek. moo tax bi mu jógee. mu daal dal ci kawam. mu njëkkee dal dal ci kawam. waaye bu dul loolu. na bu dul woon jànkuwaay la de Guiers rek lay song. Lac de Guiers rek lay song. comme yow Touba. kon yoon waa noonu. waaw ah. bisimilah yoon waa ngi noonu. Tawfekh ji rëy na yaatu na. nañ ko song rek. waaw ah, toog nañ ko song. Ah,